yaa yu a eu des morts. Il y a eu des morts, puisque j'en ai, entendu deux, mais euh, pour ma confirmer, ki nga xam ne moo doon dawal auto bi man am na un de nos chauffeurs bo ne ñoom ñaar ñoo dend ay kër am na ci ko xamni même auto boobu ci bopam sax mom na ko tay ay samba boy jog kar ñu ci mbedd mi di wut ay cocktail molotov di ko di taal auto yi ba si taal ay nit sax loolu dañ koy naqar lu baax a baax yow receveur de euh, Liberté 5 pour xool seen liggéey ndax impacté wul trop ak manifestation depuis Ousmane Sonko ndax subir ngeen expliquer ñu en quelque sorte la euh, effectivement ça a beaucoup euh, impacté puisque boo recette bi wàññeeku lu nombre de voyages yi yiñ waaw mën naa aussi am na ci ñu bari ñoo xam ni euh, seeni oto taxaw parce que c'est pas c'est sûr parce que buñ demee ba amatul euh, yenn sécurisation yi euh, foofu moom day gauche franchement parler. Le cocktail molotov yi moom moo xaw a ralentir seen liggéey moo ñu bëri gaar. Ah, absolument cocktail molotov mais yooyu ñun xamuñu ko man ça fait plus de 17 ans 18 ans mon naa de service man xam c'est une première que je vois une chose pareille. te euh, franchement war nañ cee jóg parce que yii moom non ça ne marche pas. mënuñoo daw ak xel mu dal parce que ñun heure bu ñu xëyee rek ñun ñu ngi ci fitna ñu ngi ci fitna parce que ñun ñu ngi xalaat lu ne xam nga parce que li ñuy gis la xam nga moo tax ñun mënuñoo ànd ak xel mu dal. tax muñ leen gaari suñu oto. waaw mais mënuñoo gaar parce que xam nga njaboot gi njaboot gi bu ñu xëyee ñu ngi wër lu ñu lu ñu jox njaboot gi bu ñu gaaree njaboot gi dépasse am. moo tax faw ñu xama bu doon dañuy xëy ba 14 heures sax xëy ba 14 heures xëy na arrangé wuñu mais faw ñu jéem a xool ndax bu doon benn voyage sax ñu yóbbu ko ndax njaboot gi dépasse bi kër ga. chauffeur si ak receveur si clients yi yëg tey suñu fi toogatul ndaxte doxeetuñu xel mu dal ndaxte bu dee dañuy dem di xëy ji 5 heures matin dañuy jóg pour daan suñu doole wut luñ yóbbu jox yóbbu si kër ga. tey dañoo bàyyi njaboot ginnaaw tey ay samba booy jóg. kar ñu si mbedd mi di wut ay cocktail molotov di ñu ko di taal oto ba si taal ay nit sax loolu dañ koy naqar lu baax a baax xam ne loolu ñun xamuñu ko fii Sénégal Sénégal jàmm lañu xam ma dëkku diine la dëkk bu ñu respecté la tamit kon bu fi yenn yi xewee rek yaakaar naa dañ ko war a ñaawlu képp kuy sénégalais rek war ko jàpp neexul amul kenn néew ma euh, euh, neexul ñëpp quoi. man mo man mi man patriote la neexuma deug deug neexuma mais ak lu mu am rek euh, su ndem bay bay bay manifester di ray ay nit lool maam yeneen conséquence la ñuy teg mais mënoo mëno manifester sino xamni ni ñëpp dañ ci and dégo sans problème mais su fekkee bus nga jël bus fekk mu am ay client mais fekkee amul client sax nga taal ko sax moom mën na nga xawul négocier mais bus bu am ay nit bu am ay nit si biir nga jël ay cocktail molotov sànni ko ma xam ne mën naan rey ñëpp loolu nekkul loo xam luy ñaawlu trop la sax Pour les populations, ko. ont population trop gouvernement a commandé toutes toute pièce pour dire mettre en état d'urgence pour dire a la population c'est avéré c'est une vérité absolue pure. absolument Il y a eu des morts. Il y a eu des morts puisque j'ai j'en ai entendu deux mais euh, pour me confirmer il ki nga eu un de nos chauffeurs qui amna ci ko xam même auto bobu ci bopam sax mom yoroon nako est-ce que dégg wax ci té chauffeur yi ko xam bari nañu donc c'est confirmé waaw man mom franchement parler deug euh, euh, la c'est une vérité. nee nañ chauffeur bi en fait policier la woon quoi. non je ne crois pas franchement amna yenn yo xam naxé baale mais mom euh dafa fangaral di mom di mom c'est avéré c'est une vérité absolue du deñ lii man maa la ko wax franchement parler. ñi nga xam ne ñoo yor sécurité bi ñoo wara taxaw. taxawu tataay yi taxawu askan yi tamit ba nga xamni nit dina dem dox ta do am ben problème mais bu dañu tok toog seetaan nii rek bu yagge dina doy war trop ci nit ñi da yaakaar na bu konné ni tamit nit ñi dinañ jog pour fajal seen bop ta buñ tolo ci fajal sa bop tamit dina metti trop yéen mais yéen heure ngeen di wacc heure ngeen na wacc ngeen na wacc ba légui wala da ngeen koy da ngeen teel a quoi pour éviter affaire bu ki cocktail molotov dal seen kaw légui

vraiment vraiment parce que dëkk bi war na dépassé fa nga xamante ne ay tiré bal xam nga yooyu dëkk bi war na dépassé foofu. waa ci ay manifeste yooyu yooyu dëkk bi war na dépassé foofu parce que jàmm dafa neex ñun jàmm rek la ñuy war dëkk bi jàmm moo ñu arrangé chaque jour dëkk bi leneen arrangé ko budul jàmm ak salaam way